objectif bi nga xam ne fixé nañ ko muy 20 millions de plan pour que ñu mun ko jëmbat avant hivernage bi di jeex euh, monsieur le euh, maire madame euh, la, euh, le gouverneur yéen ñëpp yéen a ngi seede ni boo tam boo jëlee route bi nga xam ne moom moo génn di traversé Fatick di dem Foundiougne temps yi képp ku fi jaar dina gis ni yoon boobu mu ngi changé xar kanam parce que planté nañ ci presque deux cent cocotiers et yeneen i programme ñu ngi koy continue en rapport ak maire bi parce que moom tamit am na yéene ci li nga xam ne moom la président la république digle pour que ñu reverdir li nga xam ne moom mooy les axes routiers ak axes autoroutiers yi mu bay ci waaram bu baax a baax en tant que ministre la république mais également en tant que maire de la ville de Fatick euh, loolu bu passé maa ngi sant bu baax la jeunesse maa ngi sant bu baax les femmes maa ngi sant bu baax euh, les services yi nga xam ne ñëw nañu suba si depuis ce matin ginnaaw bi ñu jógee Kaolack ñëw fii euh, taxaw ak ñun jëmbat ak ñun garab yi nga xam ne moom lañ jëmbat léegi te ñu fa fas yéene continuer jëmbat boobu parce que loolu mooy yéene président de la république son excellence Macky Sall dafa ne man bëgg naa balaa ma fiy jógee réew mi yëpp naat. réew mi yëpp nekk réew euh, euh, un pays vert un pays ver ci fi nga xam ne moom mooy les villes un pays vert fi nga xam ne moom mooy les villages un pays vert mooy fi nga xam ne moom mooy la campagne de manière générale loolu moo tax ginnaaw bu mu lancé campagne de reboisement bi avec la journée de l'arbre bi nga xam ne amaloon nañ ko euh, fële ci Diamniadio le 9 août dernier yaakaar naa ne booba léegi ñun ñu ngi ci terrain bi en rapport avec les collectivités euh, wax naa sànq euh, fépp fuñ jaar ñu gis ni maire bi dafa impliqué wu bu baax a baax jàpp nañ ne euh, dinañ fa am ndam dinañ fa am réussite parce que président de la république dafa digle lu ñu tuddee la territorialisation des politique publique territorialisation des politique publique na du lenn lu dul li nga xam ne moom mooy politique bi nga xam ne moom mooy le chef de l'État moom moo ko définir boo demee ci territoire yi nga fekk ñu koy appliquer. Fatick di gërëm jigéen ñi ak ndaw ñi ci liggéey bu am solo bi ñu def ñu recevoir Abdou Karim Sall le ministre de l'environnement mu nekk ci ndigalu président de la République di wër pour jëmbat garab pour Sénégal nekk dëkk bu vert ñëpp xam nañ euh, garab lan mooy njëriñam. ñu ngi gërëm bu baax autorité administrative yi muy gouverneur di préfet ci jàpp bi ñu jàpp ci liggéey ñuy woo nag waa Fatick yëpp xam ne jëmbat nañu tey 200 koko waaye il faut ñu respecter nag koko yooyu bañ ko yàq bañ ko saboter am na ay yi dañu fay xaalis pour ñu def grille ay participation pour ñu mën a def li ñu def kon ñun ñëpp ñoo ko war a jàppe suñu yëfu bopp. plage bi dañ ko war a defar ba képp ko bëgg a féexlu nga war fee mën a ñëw waxtaan nañ ak waa ADIE pour ñu def fi fi nga xamante ne xale sax bu bëggee jàng bëgg a war a mën a ñëw toog fii def fi lim fii def dem. mag bu bëggee féexlu dem ñëw fii parce que fii suñu cosaan la tey képp ku dëkk Fatick war ngaa mën a ñëw dox ci weti Mbindis ñaan fi sangu fi dem loolu day bokk ci liy développé la dëkk loolu nag suñu buggee mu dox il faut que ku nekk jàpp ci moo tax may lancé appel doomu Fatick yëpp muy góor di jigéen ñu xam ne Fatick li koy defar du équipe municipale wala benn maire moo koy mën def dañ cee ab rek suñu wàll di ci liggéey mais pour Fatick jëm kanam ñëpp ñoo ci war a dugal seen loxo mooy kuy doomu Fatick di cosaanu Fatick wala sax ku ñu fi affecté da nga cee war a bokk parce que loolooy tax développement mun a am waroo ci gis-gis waroo ci politique dana am waaye loolu waxtu politique lay nekk waxtu yi waxtu liggéey la waxtu développé sa dëkk la moo tax ñuy ñaan ñëpp dugal seen loxo defe naa ne képp ku ñëw am action de développement muy jëmbat garab muy sensibiliser pour ñu mën a xeex mbas mi loolu lépp bu ñu ko boolee def ko ci Fatick intérêt population bi lay nekk suba nag danaa mairie yu bari nag dañoo dagg xaalis bi waroon dee dem ci ASC def ko ci mbas mi ñun nag yàlla dimbale nañu ba jàpp nañ ci mbas mi ba def ci lu ëpp li nit ñi doon xalaat waaye li jëm ci mbiru ASC yi dañ ne nañ leen ko dencal suñu ko dencalee au lieu ñu dem football yi ñu jox leen ko ñu dem ci njëmbat garab yi wala ñu dem ci sensibilisation pour nit ñi mën a takk ma sol mask niñ ko war a sole di raxasu ba pare di dàndante loolu dina gunge bu baax docteurs yi ak médecins yi ak autorités administratives yi ci xeex mi ñuy xeex li nga xamante ne mooy mbas mi